ca ba tey seen beneen numéro li nga xamante ni moo di Sara Lessan comme on a l'habitude de le heure bu ñëwee rek képp koo xamante ne artiste nga dañuy am fierté di la dalal ci li nga xam ne mooy suñu plateau bu ko defee ñu xam fàccee li nga xam ne mooy sa carrière xool ci li nga nekkoon ndaxte soppeek fans si dañ la namm nee naa ko moom macha allah baat bi dafa neex bu woyee ñëpp bég te facette bu nekk la mun a wooyee koo koy Vieux Ndiaye borom olala oh tey mooy ganu Star à l'instant Vieux ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan waaw mais asalaamaaleykum mm-hmm. asalaamaaleykum waa Sénégal gépp mm-hmm. waaw di nuyu waaj diaspora bi. Mhm. nuyu sama fans ak soppeek ñëpp. ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy say projet ay projet vie lan la. waaw samay projet fi mu ne nii yàlla def na album bi génn na jàmm. Mhm. Euh, ñu ngi waajal euh, normalement fi mu nekk nii sama anniversaire. incha allah soirée bu mag. la bu koy def Sorano la 17 avril bu soobee yàlla. incha allah voilà suñ ci jógee nag bu soobee yàlla bëgg nañ def. ay tournée mhm. waaw ay ci tournée yooyu lay ñëw tournée nationale ak internationale est-ce que tamit jotul nga dellu fële nga xamante mooy Gossas Fatick bu ko defee rek euh, via defaat benn concert bu mag dippee ko waa Gossas ci li nga xamante ni mooy album bi waaw dinaa dem nag Fatick nag bu soobee yàlla mhm. waaw ndax Fatick olala man waa Fatick laa mhm. Fatick laa juddoo fa laa ba toll ni ma toll macha allah voilà après Dakar laa ñëw fii

waaw man olala oh la production la ndax oh man. Hein, mën naa ne la. Oh waaw sama lépp la parce que ñun ñooy yëngu. Mhm. di jóg di daanu. Mhm. di lijjanti. Mhm. di def. comprendre nga. te loolu dafa waaw te loolu dafa ci kenn. surtout jamono la ñoo war a jàppale wuñ. ñi ci jàppale ñu néew la. voilà ba tax na nag waaw. kon dafa mel musique bi dafa sooxe de. non musique bi waxumal dara mais. mais non mën naa ne sooxe na sooxewul. waaw ndax ah bu dee man la de moom maa ngi gis a bopp. ah alhamdulilah maa ngi ciy gis sama bopp. sodaaf mi maa ngi am samay nit ñu baax. maa ngi tëgg samay soirée ñan ñooñu. Mm. ñooñu ñooñu ñun leen sax. dañ leen sax seenul. Mm. ah mais yoon ah da ngeen bokk sodaaf leen fan yee passé ñii kaas kaas mais jamono gi am na ñoo xam ne laal nañ de ñoom Oumou Sow ñoom Pendo ñoom ñëpp ñu ngi laal de lu tax yow laalo nan lañ laale. a ah, euh, Sodaaf fay na leen de. ah boo kañ la leen fay. ah waaw wax nañ ko de. ah bon Sodaaf am na ñu muy ah, fay. te ngaa dem Sodaaf xooli a yëguma ko yëgu ko kon gisagoo ci sa bopp. dinaa fa dem xëy ah. ma am. <laughs> sa relation ak son excellence monsieur Macky Sall. <laughs> waa président moom xam nga. yéen a bokkoo Fatick waaw ñoo bokk suñu Fatick. mu nekk sama père. Mhm. nekk sama xarit ah. macha allah nekk ku baax. Mhm. mais nag ko dar nañ ko jàppale. Mhm. yaa ngi wax am solo nag. nañ ko jàppale. parce que waxuma la dara mais tey boo demee Fatick xale yaa ngi jooy di takk ay morceaux yu rouge. ndeysaan xam nga di dang-dang ndax ñun ay porteurs de voix lañ. Mhm. ñun ay waykat lañ. Mhm. xam nga man je suis apolitique. waaw voilà politiquatuma. Mhm. naam nag ay jamono maa ngi doon politique di ànd ak président dang dang dang dang dang waaye ña nga xam ne ñoo ko war a wax del jàppale say nit waxuñ ko ko ndax ñun tey man bu ma déggee tey maanaam tey ñu ngi jàppale ay waykat comme ku mel ne Mame Gor président koy teg loxo. Mhm. keneen ak keneen noonu mais nag jazaaka nag daa génn de jazaaka moom ku laal président léegi mu jël téléphone. waaw maa ngi ñëw mhm. ñun dañoo xeex ndax président. Mhm. ay jamono. dañ koy jiiñ fi blanchissement d'argent. maa nga ca kër ga. fan ok. ñu àndandoo maanaam bëgguma bëgguma kenn xeex bëgguma kenn def violence. ndeysaan. falaa taxaw. fi ñu ko convoqué woon benn jeune ñëw na ma toppal. ma topp ma. taatu fetal la ma dóor mi ngi nii. ndeysaan déggal loolu ci moom nga ko jëlee. voilà ci président. Mhm. feebar naa ko deux semaines yoo xam ne dama ko tëdd yëgu ko moom. voilà kon ñun dañoo yàgg a sonn ci moom ak leneen bi bëgg doon doon maire Fatick. ñun mhm. ñoo taxaw. kon na leen ñun ñoo jàppale ko ba mu nekk maire Fatick. Mhm. boobu gisul ñu bari ah. est-ce que tamit loolu jotul nga bàq ko way bu ko defee message bi gën a daal. Ah non maanaam am na loo xamante ne ñun dañoo way président fu ne. moom xam na mu baax. waa gouvernement bi xam nañ ma bu baax. Mhm. mais jàppale wuñ ñu surtout man jàppale wuñ ma ci dara. en tant que doomu Fatick. voilà dañoo war a teg loxo. loolu mooy mhm. dëgg jàppale it waa Fatick. parce que mhm. Fatick tey boo duggee biir Fatick. guddi boo dugg fatik da nga naan fii du Fatick ndax lëndëm. loolu du yoon amoo leen maanaam Matar ba sax monsieur le maire. mi ngi góorgóorlu. waaye des na. nañ jàppale jeune Fatick yi. ndeysaan nañ dooleel jeune Sénégal yi. parce que léegi dëkk bi man fu ma toog. Mhm. fu ma toog dëkk bi nit ñi li ñu yekk Macky Sall man sax damay mer ah. ndeysaan parce que mbokk bokk dafa garaaw. dëgg la damay am lu ma metti restaurant da ngay dugg toog. Mhm. ah ñu yàq ko lu mel ni xeme. voilà man damay sax ruus après. te loolu ña ko jege ñoo ko war a dimbale. Mhm. wàcc ci askan wi. dooleel nit ñi ca lañ leen jox yéen ministres yi yéen député yi buñ ko fàttee voilà économique et social ñeneen ñoo wàcce war a wàcc bi mais lu ñëw ñu ne président lu ñëw ñu ne président da ngay xew la sax ñoom ñoom autorité yi nga ñëw di wax ak ñoom ñu la ba wax nga ko président ndax mu bokkal leen waaw ndax ñoom seen salaire yi ñoom dañu yaakaar ne dañ koy dem denc rek banque après le président la te président fal la nga war a dimbale yow ñu ñu takk ci yow mhm. kon nañ jàppale askan wi mhm. nañ dimbale askan wi encore fois di wax président maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam fàttalikul ñi nga xam ne dañoo àndoon yow démb. Mhm. tey soog a ñëw doon démb daal ci gàttal c'est important. Mhm. macha allah message bi daal na amati na solo mu jagle ko ki nga xamante ne mooy son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal ñoom ay ndaw lañ ñoom ay jeunes lañ ay porteurs de voix lañ ñoo fi nekk li nga xam ne mooy askan wi rawatina ñu bokk fële nga xamante ne dañ fa jugéendoo muy Fatick comme li mu wax tantôt Fatick doon na dëkk boo xamante ne macha allah bu ñu Fatick xel dem ci son excellence bu ñu nee Fatick xel dem ci ki nga xamante ne mooy le ministre des sports Matar Ba ba tax na ki nga xamante ne mooy son excellence avant-hier gis nañu jeune fatigue gi di manifester wu euh, nek en colère di ñaxtu donc ñi ngi ñi ngi ñi ngi sensibiliser waat encore une fois parce que ñun lo rekk suñu wareef te lo rek lañu wara def ba tax na Fatick boobee nga xamante ne ñoom fa lañ jógee nu mu gëna naté rek ak gëna a baax vie dañu ñëw ci li nga xamante ni mooy ci walu musique kan moy sa idole waaw man sama idole ci musique mom Youssou Ndour la sank ba léegi yaa koy tudd. waaw mooy sama idole ci musique. parce que nekk na ni koo xamante ni ko am la fayda la. Mhm. nit la koo xam ne liggéey rek. da nga engagé nag. non bien sûr nga tudd engagé. man engagé lañ may wooyee. parce que nit lépp looy dugg ca ta amoo ci engagement. Mhm. bàyyi ko te ñun. ay doomi maanaam maanaam maanaam maanaam ay doomi sin sin lañ. Mhm. ñun ay sin sin lañ. amul lu ñuy ragal amul mhm. lu ñuy tiit. bu dëgg jotee fu mu ñu fekk dañ koy wax. voilà ba tax na nag man moom li may wax rek mooy. Macky Sall gessul say àndu démb. ndax ku fàtte fal. ah même boo demee it après. Mm. lañ lay waxal du baax. day des waaw ku tax fi mu nekk nii. am na ku fi jóge tey ña ko folli woon. Mm-hmm. ñoo ko fal de ñoom. Mm-hmm. ñoo ko fal. Mm-hmm. ca mbaa duñu ko yooyu yëpp man ñaanalu ma ko yàlla sax. ah mais itam day wàcc tamit de waaw ba tey day wàcc keneen ñëw. ñaanalu ma ko loolu yàlla. ay bëggoo mu wàcc. non ma de. ma ko yàlla loolu. mais non non c'est-à-dire que mandat day jeex. waaw keneen ñëw à sa place. waaw moom su demam jotee rek. waaw waaw dina dem. waaw mhm. su fi toogam jotee it mhm. yàgg-yàgg day toog rek mhm. mais yow est-ce que est-ce que jotul nag ah, comme li nga wax ni yàgg nga dem fi nga xamante ne mooy këram fan et tout est-ce que jotul tey ji amoo benn link ku ci mel ni ci moom wala ci Marème fay Sall amoo ba tey ñi seen relation ak yéen dafa des walla waa mais xam nga maanaam tey moom Marème fay Sall tey ay jege ñaalem xam naa leen mais da bind lettre ndax ñoom dañuy liggéey rek yow tay yak sa patron. Mm-hmm. tay amo droit ma jox la lettre nga jox ko sa patron te courrier am ci souf mm-hmm. les courrier bobu nak lettre yi da da da dul yegg. d'accord dañ koy xoti wala ñu am fuñ ko koy. dañuy xot non déglu ma ay saaku lettre lañu yor ay ay ay néeg néegu lettre. vieux nak yow naan nga len ah bien sûr da ngay dugal sa lettre duñ ko jot nga jàkkaarloo patron bi mu le no man gis moko ah. Macky Sall bind na ko 190 lettres. te ba ni faale wu ben bu ci nekk déglu ma la wax xanaa. ayca non moom faale na ma moom xam na man maay kan. Mhm. ndax suñu tasee dina mën a vie Ndiaye. Mhm. ci loo ne naka liggéey bi fan nga nekk. Mhm. mais ña ko war nekk ca suuf ña nekk ca suuf. ñooy ruubee ñooñu war a jàppale. wa na Macky Sall a diw. teg ko loxo ah diw teg ko loxo. ah diw ñiiñ ñii ñoo fi nekkoon. mais duñ ko def bu ñu seen bopp la ñuy waxal après jeex na. nañ jàppale daal ñi nga xam ne ñoo àndandoo ñoom démb. jàppale askan wi tamit. surtout yërëm askan wi. ndax nag billaahi walaay taala yi buñ ko waxee buñ ko waxul dëkk métti na de son nañ tey corona bi dugg biir réew mi nii mhm. waxuma la dara te yàlla traité traité ko mhm. tey bu gënee bari nii mhm. dina am ñoo xam ne danañ xaru danañ dee seen biir nekki parce que amuñ duñu am luñu lekk amuñ luñu lekk parce que supermarché yi sans corona da gis koo xam ne ah, ndekkiwut voilà <laughs> supermarché yi xaalis dafay dugg tey li am France président France bi ne bu kenn liggéey bu kenn def dara ñooñu am nañ moyen ñëpp dugg nañ ci supermarché yi dugg li ñuy dugg ña ngay lekk seen yàpp ñu lekk seen ginaar mais fii tey. bu ma Macky Sall waxoon ne bu kenn liggéeyati na ñëpp tëju. dinañ fekk ay famille yu dee seen biir nekk yi parce que yoruñ dara. nañ jàppale askan wi. est-ce que xam nga ni Macky uh-huh. naam mi ngi góorgóorlu nag. am na ay fonds yu mu dégagé. Uh-huh. am na ay yu muy def. Uh-huh. macha allah maa ngi teg sama bët. mais nag gën a góorgóorlu. wàcc ci terrain bi yërëm askan wi. te bañ a topp nag. travaux yi rek. Mhm. travaux yoo xam ne kenn xamul kañ lay. travaux yi am na solo ay travaux ay deux mille trente cinq ak deux mille cent. <laughs> nañu wàcc ci terrain bi jàppale askan wi ñi xiif lekk. Mhm. Mhm. ñi nga xam ne am amuñu jàppale. ñu jàppale leen teg leen loxo. ministres yi nag surtout. ak député yi. na ñu wàcc ci seen i base dimbale parce que Macky Sall mënut a dem fépp. c'est le président de la République. am na yeneen mënul matale lépp sax document yi nga xam ñoo nekk nañ dugg ci.

maa ngi de ci yéen. Ah, vraiment di kontaan ci invitation bi. Mm-hmm. ndax nag euh, ñu lay invité yombul. la ni di wax mm-hmm. ah, mm-hmm. vraiment te ci loolu laay dox. dëgg la engagé maa ngi maa ngi content ñëpp nag. xam nga di gërëm sama di jaajëfal ñëpp di woo Dakar Grand Dakar bàyyiwuma kenn. Mhm. Dakar gépp maa ngi leen di woo ci sama anniversaire. le 17 avril Sorano. waaw bis bu mag nag. gars yi du yomb de. Mhm. maa ngi joxe ne sama numéro. joxel defal ba defal lu la neex waaw 77 713 20 64. waaw kay 77 713 20 64. ku soxla billet yeeg yëpp na woote foofu. Mhm. gars yi dinañ la jox billet yi. billet yi entrée bi 10 000 la. VIP 25 000. bu ko kenn tardé na ñëpp ñëw ñu waxtaanee ko Sorano waaw waaye man nag ay nit ñu baax rek la ma yàlla boole. Ah. man xaw ma ay bojo bojo. Ah. waaw nit ñu riche la ma yàlla boole. daa mel da nga nar a way Sorano de. non Sorano dama koy yëngal bu mu yëngu. xam nga ñu bari dañuy dem Sorano jëli lettre. barki Serigne Touba Mbacke du ma jëli lettre. man ah. damay woy ba mu neex ndax way moom ma yóbbu Sorano woon Sénégalais yi ne. man daa am lu ma andi te album bu bees tàq laa andi. kon damaa war a woon Sénégalais yi ne ah. ay mm. way laa leen di andil. traditionnel bu neex. moderne bu neex bu soobee yàlla. inshallah même tout mo tuuti mu ñëwaat nee ko néna ko ah, waxtaan bi neex na waaye li ñuy wax sa su ne li def ci ni ah, nag bi xaju ci ci bi c'était un plaisir bok ak moom li nga xamanteni moy plateau Star à l'instant comme on a l'habitude de le faire képp ko xamante invité nañ ko muy artiste comédien acteur actrice kep ko xamanteni Nam ci lañ cee yëngu lañ ci xariñ néna ko li nga xam moy Star à l'instant dalay dalal ci plateau bu ko défé faram fàcce ses projets comme tantôt li mu ko wax ak lepp lo xamanteni mi won ci xorom ci bi ci ki nga xamanteni moy son excellence génnee nako tek ko ci li nga xamanteni moy table bi dëgg ke dëgg do nga ko lal ba tax na Dakar insta ci deug rek lay dox dina ko benen yoon ak fenel bu ko defé ñu gëna yaatal mu gëna neex ci Dakar insta vie dañ lay baye nga tejj ak son bu neex nga may ko ñi lay man de bëgg na la billahi bëgg na la. xale bi bëgg na la ma nelaw sama chéri boy lay wo ma chéri boy ma chéri boy ya ma Ya nelaw ya mu gëna xam man xawma ci kaw lañ juggé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 waaw c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant da fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah. Ga ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen lay wax na gaay yi dem abonné leen bëgg ci actualité Ñew leen ci Dakar instant. sa ligue rafet na trop machallah. allah. lo wax ci wa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ na ko chaque jour bu ma yéwo information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi di ko rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. Dakar instant na fi instant. Dakar boo yeewoo moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. booy sinap. Instagram. Twitter. moom Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout instant.